Salam alaikum bienvenue ravi de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne A2S avec un immense plaisir continuez de vous abonner cloche de notification puisque vous vidéo bu mën à temps réel bu aimer like vidéo vous di ci vidéo euh, commenter partager c'est très important comme on a l'habitude de le faire di wax sur ce qui concerne l'actualité sénégalaise tay nak dañuy wax ci jafé jafé yi nga xamanteni presse bi am nako après la chute de Macky Sall manam bi Macky Sall daano dañu gis né amna ay keuru taskatu xibaar yu bari yo xamanteni jamono ji dañu nek ci jafé jafé fi ñu koy njëkkee moom mooy E-Media e groupe de presse bo xamna la amna télé télé bi tudd ITV am rajo rajo bi tudd i rajo waaye tamit mu am journal bu tudd bés bi mu nekk groupe de presse boo xam ne ku ko jiitee woon di Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop ak euh, Didier Bouss nekk ñoo xam ne ñu am jaar-jaar lañ ci wàllu média sénégalais yëpp xàmmee leen ci seen xarañ ci wàllu média ñu ngi ko ubbi woon en 2018 à l'approche Euh, des élections présidentielles de 2019 Les ñu gis ne nag boobu ba nous ñoom ñu conditions bien Madame, am immeuble bo xamanteni bu mucc ayib la am ay auto yu mucc ayib jël personnel bu doy Masha'Allah, avec de très bons salaires ci liñu dégg ba paré débaucher ay techniciens ay journalistes ay animateurs yoo xam ne ñu ngi woon ci ay yeneen ni rajo ak yeneen télévision indi leen ci ñoom kenn masul dégg nag ñu am jafe-jafe ci wàllu salaire waaye dañu seetlu ne bu Macky Sall daanoo ba léegi ñoom ci lañ commence di wax ne dañoo am problème mu salaire mu mel ni nag yaa anguille sous roche waaye li ma ci jaaxal rek mooy fii yeneen groupe de médias yi jaar di raam di raam di raam ba egsi fu ñu war a egsi ñoom jaaruñ fa ñoom dañoo xëy rek daal di cay nekk comme li ko Youssou Ndour wooyee <laughs> da nga xëy rek nekk ca donc ñu deglu bay asan Mesere def na ci ben analyse bu neex quoi après ñu ñëwaat. ndax yow dañu judd lek ag fa télé yu mag ya ag ñom wa juddine wi du juddine kuy dogo dor ok rampé nañ. déedéet mosoo gis lolu yam Dakar di def ay raison di def. raison raison yépp am nañ am nañ ko am nañ fa raison yépp am nañ ko. wa soñ bu loolu mosoo ko gis si hmm ñu ni diw tëdd télé télé ba ken ben télé ëpp ko matériel Sénégal. hmm raison yépp amna fa ay fréquence hmm raison yépp amna fa ay fréquence ponkal yi nga xamné ñing ci ngi télé yi jël nañ leen. hmm ay auto ken ëppalé wu leen ko ay nangam indi bâtiment bi ñu nekk bo fa duggé bu ñu leen do tok hmm né dañu luyé comme ñëpp. ko la wax dañoo luye. fi ñu luye kay xaman ko parce que fi dañ fi luyoon ñu jékki-jékki ñu joggé nañ fa delluwaat nañ fële. ma japp dañu luyé rek. bu japp yow kay jàngatal non rek waaw ah, d' accord léegi nag loolu si diir bu ndaw. donc Baye Assane Mesere lii la wax nee na lu ko jaaxal daal mooy groupe de presse bi dafa tijji rek daal di commencé nekk daal ci condition yoo xam ne condition yi bien la quoi parce que nee na moom li mu xamoon te ñun ñii tamit ñun ñu bëri loolu la ñu xamoon da ngay ubbi rajo di liggéey di ñafe di ñafe di ñafe wala nga ubbi journal di ñafe di ñafe ba jur radio. nga dem ba mu yàgg rajo bi di ñafe di ñafe ba mu mu jur télévision mais ñoom dañoo xëy rek ubbeendóor lépp. waaw ba pare seen locaux yi macha allah te li ma ci jaaxal dañ fi doon xëccoo ak RTS droit de transmission bu coupe du monde mu jaaxal ma trop comme ni ko Bassel Mesere waxee tamit am nañ ay fréquence ci région yi xam nga maanaam mbir mi dafa gaaw wax dëgg yàlla te xam nga dafa am yoo xamante ni dafay tey xel. te li ma si jaaxal Macky Sall dafa daanu rek ñu commencé am problème salaire parce que dañoo bind benn communiqué ñoom. ne euh, dañu mën a joxe avance su tabaski seen personnel bi parce que dañu am jafe-jafe xaalis léegi ci personnel bi maanaam am ñeneen ñu bind ñoom xam naa syndicat lay war a nekk ci biir ne ñoom laajuñ avance tabaski waaye seen arriéré de salaire la ñuy laaj deux mois muy mois d'avril ak mois de mai ba léegi fayuñ leen ko mu nekk loo xamante ni vraiment lu tey xel la ndax groupe de presse bi dafa amoon benn ponkal boo xam ne politicien la nekkoon ci nguuru Macky Sall bu nekkoon seen ginnaaw wala déet parce que groupe de presse boobu man vraiment dañ ma jaaxal parce que boo seetloo seen ligne éditoriale Ousmane sonk moom toujours dañ ko fay attaqué moom te xam nga Macky Sall ak euh, ñi mu àndal dañ doon investir ci contre Ousmane sonk le groupe de presse boobu bokk na ci groupe de presse yu gën a Ousmane Sonko yu dàq diaboliser Ousmane Sonko dafa mel ni dafa am ay nit ñoo ils ont été formés uniquement contre Ousmane Sonko wala ils ont été recrutés uniquement contre Ousmane Sonko maa ngi ko doon wax sama vidéo bi passé seen waaju ñàkk xorom jooju paa boobu bu fal ñàkk fayda suba dans le fait top nekk ci deru Ousmane Sonko bi ba bëccëg mu dem ñibbi moom dafa mel dañ koy fay moom. naka yow Ousmane Sonko lépp lu mu def rek xapp ci suuf maanaam bi Ousmane Sonko nekkee ci jafe-jafe ci lañ gën a mën a tiré ci Ousmane Sonko di ko enfoncé moo gub su dañ daan toog di kaañoo Ousmane Sonko di ko ñaawal amoon nañ tamit benn waay Khalifa Diakhaté man gisatuma ko fa euh, moom ak gars yi ñoom ñoo jógee ndooroon euh, GFM ñëw créé seen groupe de presse moom ñëw Mamadou Ibra Kane ak ñoom Alassane Samba Diop ak Boubs waye man gisatuma ko fi nak temps yi Khalifa jahate mais Khalifa jahate il tirait tous les jours à boulet rouge sur Ousmane Sonko affaire Adji Sarr mu dugg ci nak ba première interview Adji Sarr sax Khalifa jahate tewna fa lu Ousmane Sonko wax Khalifa jahate publier dal ci kawam mu Même ben groupe de presse qui xamna ko créé uniquement contre Ousmane Sonko Mamadou Ibrakan, pareil c'est chronique contre Ousmane Sonko maanaam wax naa leen ne leen bub su mi xam ne kenn xameewu ko woon dugg ci mbiru ay politique sax moom da doon classe Ousmane Sonko di ko saboté même ba ci euh, Bassirou Diomaye bu ñu koy investir nii jiñ na fi Bassirou Diomaye golo laa golo tuddul turam mais xam nañ ne moom lay moom moom lay wax waa léegi groupe de presse boobu noonu tey nga xam ne ligne éditoriale bi mu amoon mooy attaquer Ousmane ko donte amuñ bayra parce que Ousmane Sonko moom Sénégal dañ kaa bëgg bëgg bëgg ba yow boo ko contrer ñëpp dañ lay contre investir nañ ay milliards ci seen rajo boobu ak seen télé beeg seen journaux yi ak seen locaux yeeg personnel bi yëpp waaye taxul ñu mës a am bayre TFM gañ jóge ak RFM sax ñu leen ëpp bayre kon def nañ lu nekk pour dugg ci xolu sénégalais yi waaye sénégalais yi ñoo leen wóoluwul ndax lu tax wóoluwuñu leen dañoo jàpp ne dafa am politiciens bu nek sen ginnaw di jël l'argent du contribuable sénégalais di len ko financer te gis nga sénégalais yi daf ci am ño xam dañu égoïste trop trop trop trop trop gis nga jafe-jafe yi sénégalais yi di dund sen yon nek ci ñom nañu nek ci ay conditions yu bien di dawal sen auto yi rafet sen compte bancaire yi fess ñu am xaliss xaliss bi fu mu mënta joggé bëgg nañ tay ji sénégalais bu bëgg Sénégal gëm Sénégal deug deug deug deug deug deug deug bu ben politicien jógee ko feulé mu wóor na dafa sàcc ay milliards sénégalais il s'est enrichi illicitement ndax donnul ay milliards ci ay waajuram amul entreprise politique moko may xaliss wala ñu tégon ko ci ben poste direction bo xamanteni direction bu mag la man na fa lijjanti xaliss mu sàcc fa ay milliards ñew investir ko fenn am ay complices yo xamne dañuy nek ay journalistes léeg-léeg wala ñu nek lenen ño xamne ay prête no la ñuy ñu ànd di séddoo xaalis sénégalais yi xam nga loolu àq la moo tax loolu mënu leen a jig man nag jiñu ma kenn dara mais ay supposition la rek yoo xam ne sénégalais ñu ngi koy am di ko waxtaanee ay rumeur la te ñun tamit ay borom xel lañ dañuy analyser voilà donc loolu nekk na loo xam ne daal man lu ma jaaxal la trop trop trop trop trop beneen bi mooy journaux yi nga xamante ni tey dañ daan génn. nga xam ne ñoom ñëpp seen une bi soit dañuy tagg ñu nekk ci nguur gi wala ñuy saaga Ousmane Sonko ñaari une daal lañuy am suñ saagawul Ousmane Sonko ak ñu mu àndal ñu ngi tagg waa nguur gi te journaux yooyu def ci am journaux yoo xamante ni maanaam daawul génn en papier PDF lañ ko doon génnee version numérique bu ko def bu ko defee am nañ seen benn euh, koo xam ne day def revue de presse mooy waajooju noonu nekk ca rajo ba jakar ak geej gi rek tam rew bu bëgg a xamadi xale bu rew bobu suñ ko ko joxee mu revue de presse al len ko ak sen ñeneen ño xam dañuy def revue de presse xagn na léegi am na dañu daan génné papier ñom di imprimer mais soleil lañ doon dem imprimerie bu soleil bi nga xamanteni ni état bi moko mom sénégalais yépp ko bokk ñi dem fa di imprimer tuddu ñu fay mu nek lo xamanteni ni mais journalistes yi nga xamné ne intègre mom sen bop bañ kenn takk leen ci baat nek ay mais dañ ko sont wax té ñu nek ci presse bi tamit xam nañ pas xew gis nga Macky Sall façon bi muy def pas Abdoulaye Wade ne fi njëkk Ils def xam nga sama vidéo bi passé wax na leen ne leen Abdoulaye Wade avait créé deux radios. benn radio mu ngi tudon FM benen mu ngi Express Anour Express Anour bi mu ngi ko Farba Senghor pour propagande parce que Farba Senghor bon, nekkoon chargé de la propagande au sein du parti démocratique sénégalais Sopi FM mu dénkoon ko Ousmane Ngom nekkoon ministre de l'Intérieur. salaire yi pale la daan jógee xaw ma nag ci caisse noire la daan jógee xaw ma mais dañ daan ñëw ñun man liggéey naa fa bon jamono jooju j'étais pas conscient comme léegi nii su doon jamono ji du ma ko nangu wax dëgg yàlla mais si ñu daan fay. liquidité lañ ñu daan fayee maanaam du am benn traçabilité wax naa leen ne leen ñi fa jaar bari nañ Moutbane moo yoroon journal ba Express News keroog bi may lim sax ñi fa jaar damaa fàtte Mansour Sy Cissé <laughs> yërim numéro deux sama copain moom it jaar na fa foofu la jaar xam nga ak ay grands journalistes yoo xam ne jaar nañ fa mais dañ ko daan ubbi uniquement pour def propagande waaye rajo yooyu noonu ak journaux yooyu d'habitude su nguur ga daano rek da ngay gis ne automatiquement ñoom dañuy daano parce que dootuñ amati ay moyens yu ñu fayé ay salaire xam nga tay immédiat su fekkee ne dafa am benn politicien bu nekkoon seen ginnaaw kooku tal na leneen lu dul naan day nekk fii euh, di di génnee xaalisam di ko di ko ay salaire parce que am amul am amatul benn intérêt ci ci ci groupe de presse bi parce que bi mu nekkee ci nguur gi dafa soxla woon groupe de presse boo xam ne dañ koy defal propagande

yore sa voiture de fonction bu neex am sa chauffeur am sa salaire bu baax am sa indemnité de logement maison de fonction yore sa passeport diplomatique yore sa bureau bu de goy di nos. bu vacances jotee nga dem vacances di, ci réew yu neex yi ay Amérique Europe waaw wala nga dem ci réewu naar ay Dubaï ak yeneen dëkk yu bakkane yi su ko defee sénégalais yi di dey ci pauvreté di dey ci kif, yow sa yon nekku te xaalis boobu yëpp xaalis bu salté la manam alalu askan wi lañuy jël diko ko lekk di ko mais yalla daf ñoo suturaal ba système boobu dafa daanu sénégalais ñoo jógal seen bop ne li day deñ système bi fi amoon 1960 ba léegi dañ koy dindi té ki ñu gis né koku mom mo mëna euh changer système bi koku mom moy Ousmane Sonko fexé nañ nak ba xex ko biñu ko xexé en complicité ak seen ay magistrats ak seen groupe de presse yoy noonu ak seen ay sëriñ ak seen communicateur traditionnel ak seen ay <laughs> influenceur hein ah, diko saga, diko traiter de tous les noms d'oiseaux di de deram sénégalais yi nga xamanteni c'est les sénégalais lambda conscient la majorité ils xam nañ ni ki mo gën ci ñom légui nak mon nañ ko bi ko xeexee parce mu def stratégie fexe ba dugal président Bassir Diomaye Faye mu nek président sauver projet bi moy changement bi sénégalais yi bëggoon donc kon ñom def nañ lu nek pour système bi baña changer parce que seen intérêt rek mo len intéressé intérêt sénégalais intéressé wu leen ba paré mu am ay révélation yo xamanteni yu doy war la yu Serigne Saliou Gueye def te Serigne Saliou Gueye ci seen biir la nek wa shahid shahidun min ahliha ki nek ci biir kooku moom moo mën a te mom moy xam moy am information yi kon ñu déglu Serigne Saliou Gueye révélation yi mu def ci xaalis bo xam ne dañ ko doon jox ay maison de presse diko ko verser ci seen ay compte bancaire xam nañ ne gouvernement bi fi jógee. hmm amna groupe de presse yo xamné chaque weer mu dugal leen 50 millions ci seen compte bancaire hmm te mu nek lool luma lèr leer jibit te xam ko. hmm waw dama tudugul nak ay tour mais dama né waw amna ci groupe de presse yo xamné chaque weer ñu dugal leen leen cinquante millions pour ñu régler yenn chargé chaque weer. dama né chaque weer. venant de venant du gouvernement bi fi jógee. Hein? groupe de presse yoo xam ne ma chaque weer ñu dugal leen leen 50 millions bokkut ak quotidien yi nga xamante ne non seulement ils avaient des tirages gratuits au soleil et en plus aussi quotidien yi nga xamante ne chaque weer aussi ñu fay leen seen location nangam ak nangam ba pare dugal leen cinq millions ci seen compte bancaire dégg ngeen sëñ Saliou Guèye li mu wax mais lii c'est gravissime gis nga Macky Sall moo nekk nit koo xam ne bëggul contre bi mu faloo bees journaliste yi nga xam ne ñoo doon attaqué Abdoulaye Wade yëpp la fexe dajale leen ca pale ba Ponkalma. ma seen ponkal ma le journaliste yi nga xam ne euh, da doon jàngal sax ay journaliste muy Abdoulatif Latif Coulibaly nekkoon journaliste d'investigateur mais Abdoulatif Latif Coulibaly lu mu fi yàqul euh, Ablaye Wade amul ak Karim Wade il les a traités de tous les noms d'oiseaux gis nga Latif bi Ablaye Wade dafa la bees xam nga ban livre la njëkk bind un opposant au pouvoir

léegi nag presse bu ñëwee di dal sa kaw ñëw njëkk a def mooy oo leen noppi loo leen Abdoulaye Wade noonu daan def mais defu ko nag Abdou Latif Coulibaly dafa bàyyi woon Abdou Latif Coulibaly ci biir ak Latif di saaga di attaqué di wax lu ko neex donte yi mu doon wax am na partie vérité quoi mais bu ko Abdoulaye Wade owoon ci jamono jooju comme ni ko Macky Sall oowee day ñëw léegi nag yeneen journaliste yoo xam ne tamit dañ doon tiré ci Abdoulaye Wade Macky Sall bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy pour gars yi may ko jàmm mu mën a gouverner tranquillement nga xam ne bu am journaliste yu koy critiquer mu dem jëri Abdou Latif Coulibaly mi nga xam ne moom moo bindoon livre boobu noonu ci Ablaye Wade ba pare bu leen fàtte ne bindaat na beneen livre tamit ci doomam Karim Wade compte je me compte de l'ANOCI donte ANOCI bi amoon na ay scandale ak yëpp mais Latif lu mu doon def gëmu ko ci jamono jooju nee naa buñ ko owoon na ko ñëwal day ñëw mais chantage mu doon def jàllutoon ak Ablaye Wade doomam mais bi Macky Sall ñëwee Latif la njëkk récupéré bi mu ko récupéré yóbbu ko ci palais ba daf ko ministre Latif noppi te gis nga li Abdoulaye Wade doon def Macky def ne mille fois pire que Wade Latif noppi li xew Sénégal ci ay ñaaw ñaawteef yëpp Latif mu ngi noppi te temps yi Abdoulaye Wade da daan dénoncé moins que ça Latif da daan bind livre di dénoncé kon loolu moo loolu moo lay wan ne gars yi gëmuñ dara Macky dajale fa ay ñoom Aline Fall ay ñom El Hadj donto mom yag nak ñom ak ñoom xamna xam nga ay Abu Abel Abu Abel bi mu nekkee premier ministre la ko jëloon daf ko chargé de communication parce que Walfadjri la nekkoon ñoo nekk doron ay Mamadou cham Mamadou cham, moy magu Urey cham bi nekk RTS léegi nekk tu fofu naa ci affaireu aj màkk gi la nekk tam jur xalé bobu non Vigi Urey cham moy yaay Vigi moy boy bobu noonu di wéy amna ben frère am bu tuddu Mamadou cham journaliste la mais kooku commencement bi lu mu dul yàkk Macky Sall amoon commencement bi da doon attaqué Macky di ko attaqué xoolal ci plateau télévisé yi partout Tunkara da ka invité sax seen émission boobu noonu moo ko Aliou bu ñu daan def vendredi muy dal ci kaw Macky Sall mais Macky da rek moom mu noppi di demaat ci plateau yam daan di attaqué Macky Sall continuer di tagg Macky Sall foofu <laughs> amoon na beneen vaurien tamit bu tuddoon euh, Amadou Diouf. ñoo nekkoon doon wal fajri quoi mu nekkoon ci quotidien bi jékki-jékki demoon fa demoon euh, xaw ma ñu ne France demoon dem jàngi xaw ma moom it bi mu ñëwee ñu recruter ko mu nekk ci plateau yi di wër di défendre Macky am na journaliste boo xam ne Baara Ndiaye la tudd moog ñoom may mën a fay ñoo nekk ndoroon canal info moom dafa jënd carte APR ñu jox ko maison de la presse bu ñu tuddee Babacar Touré dégg naa dafa transhumé dem euh, Pastef avant élection yi xaw ma nag ndax dëgg la am déet waaw dégg naa ko nag léegi am ay journalistes yoo xam lañ nekkoon dem uti carte membre APR di militer comme euh, Angélique Manga ak Nafsatou Diouf bi ñu owoon gendarmerie barki dem pour affaire oto yeeg yooyu ak Thierno Ahmadou Sy Thierno Ahmadou Sy mos na di def journal RTS fekk moom dafa amoon benn meeting bu mu doon def ci affaire APR laa la de mom muy présenter journal ba paré teg élément yam moom ci biir journal bi <laughs> motax gis nga Macky dafa yak presse bi dafa yak manam presse bi la yàq Madiambal Diagne commencement bi da doon attaqué Macky Sall mais Macky da ko oo mu ñew xam nga yombalal ko yu bari mu mën am ay terrain di tabax parce que promoteur la day tabax souleyman Jules Diop Canada la nekkon di attaquer Ablaye Wade di laa xaale Macky Sall ci attaque bi masul may Macky Sall dara daf doon wax ne Macky Sall nan lañ ko mën a defee ministre ci gouvernement Macky Sall dafa incompétent lu nekk la doon yàq Macky Sall Jules Diop Macky dafa falu rek bañ mu nekk Canada continuer toog foofu di ko attaqué mu oo na ko ñëwal mu ñëw mu def ko ministre. yaa xam mbay tamit avant Macky Sall di ko oo di ko def euh, directeur Soleil. waaye yow lu nekk la daan wax Macky Sall di ko attaqué xanaa xamoo yaa xam mbay moom moo théorisé dina si fay sàll ci diineeg jamono la toogoon bu Sidy Lamine Niass Sidy Lamine invité ko jour boobu la théorisé dynastie fay Sall di attaqué Macky Sall si plateau télévisé yi après Macky oo oh, ko moom it mu noppi mais Macky ñi ko doon attaqué ci ay journalistes mu oo leen bëri nañ de wax naa leen Tunkara tam nekkoon 2S du journaliste mais da doon attaqué Macky Sall bañ oo ko mu dem Macky di rey nit ñi di xañ nit ñi seen af ak seen yelleef di def du n'importe quoi Tunkara noppi mais au contraire da doon sax défendre Macky Sall ah lu garaaw laa leen di wax nii am na journalistes yu bëri yoo xam ne ak ay hommes de médias yoo xam ne début bi dañ doon attaqué Macky Sall bu baax a baax ak Mout Mourban Dakar Times la ilaha illallah Allah. lu mu Macky Sall amut Mourban créé na sax ben mouvement bo bok ci opposition bi Bagn amna da ben amna vous fi waxone wax ju reuy convoquer ko police est-ce que ko arrêté sax je me rappelle plus li may wax deux mille 2015, deux ne Canal Info Karim Wade moom moo ko ubbi canal info foofu la ñoom Maimouna Ndour nekkoon Maimouna Ndour bi moom 7TV nii instant bi te 7TV tamit xel tey na ci ndax ñu ngi koy tudd ci xaalisu Prodac bi ne financé nañ ko ci waaw am na euh, benn somme boo xamante ni nee nañ financé woon nañ ko ko ci xaalisu Prodac bi te am na tamit benn ponkal politicien ngandam maami politicien bu nekkoon ci Macky Sall buñ doon tudd sax ne. moo leen doon fayal seen salaire dama ko dégg rek nag aw ma ci dara lu ma ci leer nag dama ko dégg rek waaw comme dëkk bi moom ku wax ñu porter la plainte <laughs> dégg naa daal ne ponkal politicien boo xam ne yoroon na benn direction bu mag a mag a mag moo nekkoon di fay salaire yi. xam nga lan moo leen di xamal ne groupe de presse yu bari dafa am ñu nekkoon seen ginnaaw ay homme politique yoo xam ne ñu ngi woon ci nguuru Macky Sall xam nga lan moo leen koy xamal. mais Sénégal du ñuy liir journaux lu bëri yow xoolal journaux yi yi doon génn chaque jour maanaam lu ñuy euh, defar ci ay exemplaires du mat sax dix mille exemplaires di ko jaayee benn cent franc léegi nga am benn appartement boo xam ne yaa ngi ko équipé loué ko di ko fay par weer di fay impôt di fay courant di fay ndox di fay téléphone. di fay sa ay journaliste am chauffeur qui fay employé ay nit dina am jank bo xamna sax day ñew locaux bureau mais xolal charge yoy nu mu journal buy jar 100 franc bo xamna yow exemplaires par jour mais loolu yanuwul La télévision ak publicité mo koy doxal day am convention mais amna télé publicité amna radio yo xamna xam tamit amul publicité ñi yoré personnel di len fay comme ni ma ko waxee sànq di fay ndox di fay courant di fay téléphone di fay location amna ñu xamna ay immeuble lañu loué immeuble def fa seen radio def fa seen journal def fa seen télévision su fekké na immeuble ba sax du ponkal mi moko mom ki nga xam mo nek ci gannaaw <laughs> politicien bu ponkal bi te nekkoon ci Macky Sall manam dafa doy war loolu mo len di wan ne kon affaire bi nekkutoon nen dafa am ñu nekkoon seen ginnaaw léegi lu tax Macky Sall daanu rek ñoom ñëpp ñu commencé am problème tamit ngeen xam ne noonu rek la mën a demee gars yi ñoo nekkoon seen ginnaaw du dara lu dul loolu te gis nga journaux yi ngeen doon dégg ci temps yi Macky Sall surtout yi doon saaga Ousmane Sonko yu bëri lañ ñu tëj dootoo leen déggati rajo yu bëri dinañ tëj télévision yu bëri dinañ tëj. parce que duñ ko attan yow boo amatul ko la fayal ay salaire kala daan fayal salaire nekkatul ci nguur gi bi nekkee ci nguur gi amoon na possibilité pour sàcc xaalis pour di la fayal ay salaire nga koy defal propagande waa mais moom su fekkee ne lu mu jot a rawale rek ci la fas yéene dund te loolu gars yi mën nañ kaa topp pour nangu xaalis bi mais kooku boppam rek lay tal du tal leneen ak njabootam parce que ñu ci bëri amuñu métier. amuñ benn revenu par weer ci nguur gi lañ nekkoon rek di profité di sàcc donc duñ fi nekk naan dañuy euh, euh, engagé wu di fay ay salaire te euh, rajo yooyu ak télé yooyu mënatuñ leen a defal dara ak journaux yooyu noonu donc kon lu sëñ Saliou Gueye wax ci presse bi mais am na maison de presse yoo xam dañu leen doon dugal ci seen compte chaque fin du mois cinquante million loolu tey gouvernement bi ñu ne ñoom dañuy xeex ak ñoom muy gouvernement Ousmane Sonko bi ah tey mais bu ko neexoon mais mu am ci lu ko leer ubbi ci ay enquête xool xaalis boobu noonu fan la doon jógee ndax lew na wala lewut maanaam yéen xeex bi ngeen bëggee xeex ak Ousmane Sonko yéen mënu leen ko parce que Ousmane Sonko maanaam xeer la ci yéen jamono jii xam nga bu njëkk ba yàgg ngeen ko saaga bi mu nekkee dans l'opposition su leen a faale moom réseaux sociaux yi moo ko may lu mu am yëpp ak ñun ñi nekk ci di ko jàppale te yàlla tax mais su fekkoon média classique bi rek la yaakaar. wallahi kon demul fenn benn ñaari ñaari média daal ci média classique bi ñoo ci tëddee woon jaaxaanaay ñu bari sax di leen jiñ ne Ousmane Sonko la ñu mooy Sud FM ak euh, Walfadjri waaye li ko mooy ñun ñii ak Ousmane Sonko li mu doon génn ci réseaux sociaux di wax ñëpp di ko seetaan nga xam ne force am foofu la nekk loolu moo ko may li mu am nii tey moo tax seen tiraillement bi ngeen nekk ak Ousmane Sonko nii naan da ngeen di jéem a xeex ak moom. manul nek parce que 50 millions yi seigne Saliou Gueye wax bu ko nekhone mu ci enquête parce que banque yi da fay am traçabilité dinañ xam kan mo len ko don yonne ak lutax mo len ko don yonne ak xaliss bi fan la dan jógee su fekkee virement bancaire la won su fekkee ci caisse noire bi nak la dan jógee su ngeen muusoon da ngeen koy jël joxé ko en liquidité en espèce mais le fait que ngeen def ko virement rek hein moi ne trace traçabilité man na am fof ba paré mbiru impôt yi ñëw teguwaat ci sen kaw té di ngeen ko fay par force kon mieux vaut man ce que je vous conseille moi nous sommes tous des sénégalais xam nga nek ngeen fi Macky Sall recruté leen ngeen def boulot contre contre Ousmane Sonko légui te terewul Ousmane Sonko falu na <laughs> ma nga ca nguur premier ministre président Bassirou Diomaye Faye moy président de la République kon déjà waxuma mu jaay leen doole mais su leen bëggee jaay doole mën na leen a jaay doole parce que li ko doon Macky Sall di def ànd ak yéen bu ko neexoon mu def leen ko mais xam naa ne man du ko def parce que moom joxuñ ko doolee nguur pour mu koy xeexee comme ni Macky Sall daan def ànd ceeg yéen mais léegi ce que je vous conseille mooy dem leen ngeen fexe ngeen waxtaan ak moom wala seen ministre de tutelle muy Aliou Sall ministre de la communication su ngeen waxtaanee ak moom waxtaan ak waa impôt ñu xool nan nan ngeen di fayee impôts yi xam nga mu oyof ñu defal leen ko moratoire su boobaa sax mën nañoo xool nan lañ leen di oyofalee impôts yi pour prochaine fois parce que impôt wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne ku ne da nga ko war fay mais groupe de presse yi amul xaalis maanaam le journalisme ne nourrit pas son nom au Sénégal amul xaalis passion la rek tubaab yi nga gis ni ñu dugg si ñu si bëri. ñoom amuñ ci lu ne gàññi donte ñoom seen dëkk ba organiser nañ ko ba li nit di yëngatu rek yow di nga ci am looy teddee te milieu bi dañ koy assainir ba nga xamante ni tey képp ku ci nekk di nga ci gis sa bopp. léegi ngeen jéem a waxtaan nañ la leen di wàññilee yéen li ngeen war a fay ci impo bañ leen a tollale ak yeneen entreprise yi nga xamante ni ay euh, industrie la yoo xam ne lu muy def ci chiffre dafay dafay bëri xam nga mënoo leen a tolloo du ngeen benn yéen publicité rek yaakaar su ngeen ko amul mooy loolu. te du rajo yëpp ñoo am bayre du télé yëpp ñoo am bayre ba nit ñi bëgg faa jaarale seen publicité ngeen xool état bi nan la leen di jàppale comme France système bu ñuy def mooy taxe d'habitation ñi nga xam ne dañuy seetaan seen télé yi di déglu seen rajo yi ah di lire seen journaux yi ñu xool nan la ñuy teqee ci ñoom euh, taxe d'habitation bu ko defee ñu leen koy verser yéen ngeen mën na gérer seen bopp am autonomie organiser wu quoi te bàyyi politiciens yi ngeen di topu, wala ay homme d'affaires ñu nek seen ginnaw di leen financer pour ngeen di yak nit ñi homme d'affaires wala politiciens bu ko nexé mu ubi entreprise de presse mais bu leen nangu ku leen di dallo ci kaw nit ñi entre tay man nga ubi sa ben rajo wala ben télévision de propagande am nga ci droit di propagande sa bop mais so soo gëmlooyee nit ñi na yow da ngay équilibrer da nga wara équilibrer mais mënoo ñëw ne yow benn presse nga boo xamante ni da ngay équilibré ba pare ciblé nit di ko attaqué di ko diffamer di dal ci kawam loolu dafa ñaaw wax dëgg yàlla xoolal Bougane Gueye Dany li muy def tey mais loolu ñëpp xam nañ ne loolu mënta continuer loolu day tax Sénégal yi dañu lay gën a jéppi yow nga yore sa benn groupe de presse tey singali benn nit muy Ousmane Sonko sa chroniqueur yi ci Ousmane Sonko la ñuy xëy di gont ci moom sa journal bi si Ousmane Sonko lay xey di gont ci mom di ko calomnier di ko diaboliser mais pour lan te bougan daf don wax ni kat mom anti système la wah anti système bi sen candidature jàll moy président Basir Diomaye Faye mu waron dem soutenir ko parce que mom candidature am jàllut mu tok soutenir ko wax euh, wa gëm sa bop na len votel len ku ngeen bëgg voter votel yow naka ngay waxee ne yow anti système anti nga ba pare nga ne voté leen ki ngeen bëgg a voté kon kañ sa sa waa euh, parti wala sa waa mouvement bu ñu demee voté Amadou Ba kon kañ kooku voté nañ waa système bi bu ñu voté ñeneen ñoo xamante ni candidat système bi lañ timit voté nañ système bi ñu dem ba mu yàgg nga ne yow deuxième tour ngay xaar xaar deuxième tour ba sonn gisoo deuxième tour première tour la affaire ba yem léegi nag nga bëgg a ñëw jël ñi bëgg leen def ennemi. commencé de leen attaquer en utilisant sa ay support médiatique avec sa euh, journaliste avec ses chroniqueur mais loolu man ça ne peut pas continuer Bougan. gis nga Ousmane Sonko maanaam dafa am légitimité populaire Sénégalais yi dañ kaa bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ba yow boo ko defee noonu affaire bi day sa kaw gis nga ku ñëpp bëgg soko bañé daf ko daf ko non rek yow da ngay bëri non. Motax jaru ko jaru ko nañu ànd nekk benn liggéey Sénégal donte ñëpp mënuñoo bokk gis-gis waaye xeexante bi ak iñaan bi ak bëgg ñu échec loolu jaru ko parce que ku bëgg Ousmane Sonko échec ak le président Bassirou Diomaye Faye mooy yow bëggoo Sénégal en fait warul nekk problème nit yoo xam ne lan moo la war a intéressé mooy l' avancement du Sénégal te waroo def sa bopp ne su dul man rek du nekk keneen man rek maa war a jiite réew mi man la waroon a nekk mais comme yàlla defu la ko nag. wax dëgg yàlla te Sénégalais yi ñooy tànn te tànnuñ la mais gëmal yàlla nga sant yàlla mu jeex. ñun ñëpp ay sénégalais lañ buñ sañoon kenn du am ak kenn problème mais xeex bi ngeen song nii contre Ousmane Sonko loolu mënta continuer nee naa leen même bu mu nekkee dans l' opposition mënul leen ko woon dara parce que faalewu leen woon te terewul fa mu bëgg àgg àgg na fa fal na président yam ànd ak moom di gouverneur nekk premier ministre comme léegi nag ñoom yore doole ji te indil nañ leen ay impôt ngeen jiñ ko ko ah? léegi toog leen ngeen jéem a waxtaan. su ko defee ngeen jéem a sauver seen emploi yi nekk foofu c'est très important dina ci am solo waaw donc lii daal lañ amoon lu ñu doon wax groupe de presse yi daal Sénégal ñëpp xamoon nañ ne gars yi ay armes lañ ko def di ko xeexee xam nga rawatina ak politiciens yi te gis nañu ne daal bi Macky Sall daanoo ba léegi groupe de presse yu bari dañoo am problème nañu organiser waat affaire rek bu baax a baax a baax a baax salaamaaleykum